kazaliki ni waxal lépp na nga notal a naqsa ga in warada dem rot manam maanaam soo juumee ba wàññi wàññi kese ci julli gi wala nga juum ba boole dolli ci wet wàññi ci wet yépp rek da ngay sujjoot qabla salaam njëkk sëlmal qabla salaam mooy ba ba ji mat bala wax nga ñaari sujjóot dellu taayawaat nag soo juumee nag ba yokk ci julli ga yokkub kese kese waaye wàññiwoo ci genn wet da sujjóot bax da salaam gannaaw sëlmal mooy dangay ngay julli ba sëlmal ba àggal daal di sujjóot ñaari sujjóot baamuwaat taaya ja baamuwaat sëlmal ba kon nag seetlu nga ne buñ nee sujjóotu jamooj jubluñ ne benn sujjóot lay doon déedéet ñaari sujjóot lay doon moo xam njëkk sëlmal la moo xam gannaaw sëlmal la saa yoo juumee nag ba ñu digal la sujjóotu jamooj bii kon nga def ko sunna la dana am sax fu la ko digale foo xam ne boo ko deful ba mu yàgg rekk julli nga yàqu te mooy boo bàyyi woon lu mat ñetti sunna ñu digal la sujootu xabla salaam nga fàtte ko ba mu ko si yàgg mbaa nga jóg fa nga doon jullee kon julli ga yàqu na wastadrik na nga dabaatal alqabliya sujootu xabla salaam ma aqur bi salaami ànd ak jege salmal wastadrik te nga dabaatal albaadiya sujootu baxda salaam walla min baadi aamin ak doonte ci gannaaw at la fiñ la digalé xabla salam nga fàtte ko bu salmal way yegut te jógoo fa nga doon julé kon dang koy def rek ko na sax bahda salam waye du ci wañi dara fiñ la digalé nak bahda salam gannaaw sëlmal mom foo ko rek yokku kese mo koy waral te kon dañu sujjor ngir toroxal seytaane kon nak soko fatte lu yag yag ci sa dundu soko defé rek mu di loolu mu ne doonte ci gannaaw at say boon rek di rub sa dund boo ci defee rek mu baax moom wax de salaam yaxmilu dana yenu haadayn yi la yaar al imaamu ilimaan ba xan muqtadin walis aji roy yaar yi te mooy sujootu xabla salaam ak baxde salaam su amee ku lay jiite dal na la koy yenul dal na la ko yemul mooy la nga ànd ak moom boo ci juumee juum goo xam ne bu doon yow dong ñu digal la ci sujjóot kon ilimaan ba gàddu na ko du aajoo ngay sujjóot mu ñëw nag ci yàq julli wa batalat yàqu na moom julli bi am di nafxin ci tey wal kuy julli ëf ak giwiñam te tey ko julli ga yàqu na su fekkee teyu ko nag moo ko wax ngir njuum te ñoo mo day sujur rek bax de salam wal ak bakkan nak mom du yaq julli lu may mu bari bu bari dañ koy si né jëf-jëf yu bari ci julli ga mu dal yaq julli ga aw kalamin wala tay wax di xëyri islahin ngir mudul defar julli ga su dee julli tay ko wax wax ju bokul ci julli ga te it defar julli ga waralu ko julli ga yàqu na su fekkee nag dafa wax ngir defar julli ga nekk ilimaanam dafa juum te mënta ñàkk wax ak moom mu wax ak moom lu yem képp yem ca loola du yàqu julli ga waaye nag su fekkee ne wax ji ajuwul ci julli ga donte sax yoona ko ca forcé ne mënoo koo ñàkk def ni mu seen gumba guy bëgg a daanu ci aw sawara mbaa kàmb yoon da koy wax ne ko faw nga wax te xeetali gumba gi mu moytu sawara wa mbaa kàmb ga te lu nag wax ka muy wax faaw ak juleem yàqu bu waxee nag ngir juum rekk ni ki daa fàtte woon ci julli la nekk kon day sujoot baxda salaam wabil mushkili ak ci lépp luy aji soxlaale maanaam luy aji gàllankoore xan fardin walis farata wa axit na nga baamu fil waqti ci waxtu wa ida yu sannu dem def ko sunnaal bu dee julli am lu ko gàllankoor ba mu bàyyi farata ni ki rukkoo te rukkoo bu matut jotu faa dal tekk mbaa sujjóot te sujjóot bu matut ni ki muy julli yàkkamtee dem ca wana wa loola nag tax mu ñàkk matal farata ni ki rukkoo mbaa sujjóot julli ga day yàqu faaw da koy julliwaat bu fekkee nag yàkkamti gaa dem ca wana wa ci misaal téewu ko matal farata ya sunna rek manqué ci julli ga kon ñu digal ko mu baamu ci waxtu wa rek bu waxtu wa xasee jàll jëratul baamu wa xaddasin akum toj bu dee julli ba ci biir am njàppam toj wala mu fàttaliku ne moom toj la woon na te jàppaatut kon googu julli yàqu na wa sahwi zaydil misli ak juum ba yokku lu toll ne julli ga julli gu boo juumee rek ba yokku ca ay rakka yu toll ne li mu rakkaam mu daal yàqu mel ne tisbaar mu juum ba yokk ca ñeent muy juróom-ñett wala takkusaan mu juum ba yokk ci ñeent mu juróom ñett wala julli suba mu juum ca ba yokk ci ñaar muy ñeent yépp day yàqu timis nag moom wax ji gën a wóor mooy li nga yokkoo ca ñeent du yàqu ki timis bu ko defoon juróom benn it du ko tax a yàqu day sujjur rek bax de salaam yokk ca ñeent daal moo koy tax a yàqu xëx bu dee julli ree ree gu am kàddu ba tey julli ga yàqu na wa am di shurbin ak tey naan ak lin ak tey lekk bu dee julli tey ko lekk mbaa mu tey ko naan julli ga yàqu na nee nañu nag wax ja gën a wóor mooy bu jullee naan mbaa mu julli lekk waaye na teyu ko dafa juum rek te booli yaar yépp lenn la ca def kon julli ga baax na dañ koy digal rek bu sujjóot sujjóotu jamooj waaye julli ga du yàqu wa sajdatin ak tey yokk ab sujjóot maanaam bu dee jul tey ko yokk ca ponk boo xam ne ponkub jëf la du ponk bu wax ni ki mu tey ko yokk ca brokkoo mbaab sujjóot julli ga yàqu bu ko teyoon na yokk ca ponk boo xam ne ponk wax la ni ki jàng faatixa yaar yoon moom du yàqu xay in ak tey wàccu bu dee julli tey ko daal di wàccu ni mu luul ji génn julli nga yàqu wa zikri fardin ak fàttaliku farata aqal la juyees min sittin ci juróom benn ka zikril baadi ni ki fàttaliku lenn julli bu dee julli fàttaliku ne am na ay julli yu ko te bariwuñu juróom la mbaa ñeent jëm suuf kon julli gam doon julli yàqu na ndax da koo war a tegale ak yooya waaye nag foofu aajo woon a teqale su fekkee ne yaari julli ya dañoo bokkaale waxtu bokkaale waxtu nag mu ngi am diggante tisbaar ak takkusaan ak diggante timis ak gee yooyu yaar moom li fekk nga xam ne xaj nañ ci seen waxtu faw nga tegale leen mbaa boo njëkkee julli gu ñaareel ga du baax jappal ne kon li fe nga xamne beccëk bi man nga ci julli tisbaar ak takusan soko ko ñëk julli takusan du baax faaw bu julli tisbaar bu agal dang koy baam wa tek ca timis sa geey itam li fekk ñi ngi seen waxtu soko ko ñëk julli gee du baax faaw boo julli timis ba nopi nga waat gee suñu xasoon raw nak nga leen di fay mbaa waaye xajatuñ ci waxtu wa kon moom yaari julli yoo bokkaaliwul waxtu ñooye moo képp ci nga xamee ne nga tegale leen ndegam woo ko lu war la waaye nag boo ko tayee bañ koo def itam du tee ga nga jiital baax mel ne tisbaar jot mu wóor ne julli suba nga tey ko njëkk julli tisbaar danga am bakkaar ndax da nga waroon sësale njëkk julli suba door ñëw ci tisbaar waaye nag boo ko tey def ko itam du te tisbaar bi nga jiital dana baax danga nga na ci ñàkk gaa tegale kon loolu mooy takk-takk bi julli ya raw daal bu fekkee ne dafa tàmbalee ci juróom jëm ca suuf boo fàttalikoo am julli koo xam ne itam moo teew na nga njëkk fay ya nga xam ne ñoo raw ba as ci ki teew door koo julli loolu nag liñ ko teqalee rek bu fekkee defoo tegale googu itam danga nga am bakkaar ñàkk gaa tegale ni ki boo njëkkoon julli ga nga xam ne moo teew door fayee ci gannaaw it du tee mu baax yàlla raw nag bu ëppee juróom mat juróom benn jëm ca kaw moom am gu teew kon dangay ngay jiital gi nga xam ne moo teew ba noppi nag door a fay yooyee nga xam ne ñoo la raw te bari bu waxtu waxatee ba nga xam ne boo fi nekkee di fay yooyu raw far gi nga toll woon moom it raw la ne ñoom kon day araam ngay jiital yooyu la raw di door a ñëw ci moom faaw danga ko war a jiital moom bi nga xam ne moom nga toll ci waxtoom bala mu laa raw ni ki yu bari yooyu la raw ba tey it boo doon julli ak julli fàttaliku ne julli ko ku jiitu tey war a sësaloo kat bàyyi woon nga ca farata xës na yàgg léegi kon googu nga julli woon te bàyyi woon ci farata tum xasi yàgg moo ko julli wutoon ñooye moo day mel ni kon rek kuy julli ak julli fàttaliku koo xam ne moo ko jiitu te ñu war a sësaloo kon ba tey ji nga nekk yàqu na waaye ci kaw ni ma ko teqale woon léegi rek su fekkee bokkaale wu ñu waxtu ni ki ngay julli tisbaar fàttaliku ne ba nga julli suba kat bàyyi woon nga ca ab sujjóot ba ab rukkoo kon day mel suba julli woo ko woon te dañoo war a ñoom ñaar kon dangaa war a dagg tisbaar dem julli suba door ñëw nag ci tisbaar waaye loolu warugar la boo ko bàyyi am bakkaar boo ñëwee itam nag tisbaar ji door julli suba it du ko tee baax wa fawti xabli yi talaati sunanin ak faatuk sujjóotub xaw lak yetti sunna bi fasli masjidin ci teqale jàkka katooli zamani niki yàgguk jamono ja boo bàyyee lu mat ñetti sunna mbaa ëpp ko ñu digal la ca sujjóotu xabla salaam soo fàttee xabla salaam ba nag ba mu xas yàgg mbaa nga jóg fa nga doon jullee rek julli nga yàqu na faw da ngay julliwaat su fekkoon ne nag nga tax ñu digal la xabla salaam ba mëttoon ñetti sunna dafa nekkoon ñaari sunna mbaa mu nekk lu mel ne bàyyi biral nga xam ne benn sunna la kon bu xasee yàgg rek da nga koy far bàyyi noona julli ga baax na bi jar ngay sujjootati mën nga koo bàyyi noona wastadrik na nga dabaatal ar na ponk ba fa in xaala ndéem diggale na rukoo xun rukoo fa alxi na nga wàcc daata sahwi ràkk bay boroom juum ga wal te jokk ga yàttuwoon dana topp soo dee julli am ràkk boo xam ne danga nga caa fàtte farata ni ki ngay julli ràkk bii nga fàtte ca sujjóot laytee nga mën koo def mooy nga jàll ca ràkk ba ca sës ba rukkoo ca ba siggi soo jàll ci ràkk ba ca sës ba rukkoo ca ba sigg rek kon ràkk ba ko jiitoon te nga bàyyi ca farata doo ko limaaleeti ndax bàyyi nga ca farata te mu ne su ko defar niki boo demoon ci ràkkab ñaareel rukkoo ba siggi fàttaliku ne ràkk bu jëkk bàyyi nga ca sujjóot ràkk bu jëkk ba bul ko limaaleeti sa ñaareel bi kon léegi moo soppiku bu jëkk loolu lañ jubli ci li ñuy wax albina jokk albinaa jokk mooy rakk boo xam ne bàyyi nañ ci farata ba mënees ko limaaleeti ba sës ci moom rek taxaw taxawaayam bu ko defee na rakka yi tegaloo woon daldi jëladiku loolu moo tudd albina boo demoon tam ci rakkab ñetteel ba rukkoo ca ba siggi fàttaliku ne rakkab ñaareel kat bàyyi woon nga ca farata kon ñaareel ba bul ko limaaleeti sa ñetteel bii moom ngay soppi ab ñaareel daal di wéy nag jàll rakka bu mujj bi nag moom dañ ko jagleel àtte boppam rakka bu mujj ca julli ga boo ca bàyyee farata lay tax nga mën koo def mooy rek jotulaa wax asalaamaaleykum joo xam ne dangaa jàpp ne julli gi mat na moo tax nga wax ko nekki jotoo wax asalaamaaleykum mbaa wax nga ko waaye dangaa juum rekk nde du jàpp ne mat na kooku moom farata joo fàtte woon ci ràkk bu mujj ba rek def ko wéyagut da koy def rekk waaye nag boo xasee wax asalaamaaleykum ci ràkk ba ci mujj te wax ga nga ko wax da jàppal ne kat julli gi mat na moo tax nga wax ko kon ràkk bu mujj boobee farata joo ci bàyyi woon tam doo mën a dellu di ko defi da nga indiwaat benn ràkk rek mu wecc ko ka fi'li man ni jëfi koo xam ne sallama salmal na laakin waaye yuxrimu dana armal lil baaq yi ñeel aji des ca julli ga wattoolu yàgg ga it kat mulzimun waral la alfasaada yàqu ga takk-takk bi mooy rek rakk yi nga xam ne moom bokkuñu ba ca mujj boo ca fàttee farata laytee nga mën koo dabaatal rek mooy nga dem ba ca rakk ba ca sës ba rukkoo ca ba siggi loolu mooy teye nga mën a dabaatal farata joo bàyyi woon ci rakk ba ko jiitu bu dee mujj nag moom ni ko waxee rek lay nga mën a dabaatal farata joo ci bàyyi woon mooy nga wax asalaamaaleykum joo xam ne dangaa jàpp ne julli gi mat na moo tax nga wax ko ndegam nag wax nga asalaamaaleykum te jàpp ne julli gi mat na moo tax kon nga indiwaat beneen rakk mu daldi wecci rakka boobee nga bàyyee woon farata ja danga nga yéene yéene ji yees wax itam allahu akbar jublu ci armal ñu sopp itam nga yëkkat say loxo ci booy wax allahu akbar ji daldi andi nag rakka boobee nu takkaale foofu ne saa yu waxee asalaamaaleykum wax goo xam ne daa jàpp ne julli ngi mat na gannaaw ba nag mu fàttaliku lu bokk ci julli ga day daldi armalaat yéene yéene ji yees wax allah akubar dañ sopp mu yëkkati ay loxoom daldi def nag loolee mu fàttaliku tam bokk ca julli ga waaye nag ci kaw mu bañ yàgg te it jógewut fa doon jullee bu fekkee ne booba léegi yàgg na wala jóg na fa doon jullee mu door fàttaliku ne julli ga am na lu ca bàyyi woon kon julli ga yàqu na faaw day julliwaat man shakka ku sikki sàkka fii ruknin ci ab ponk banaa mu jokk alal yaqiina ca wóolu ga wal yes jutte na sujoot albaadiya sujootu baxde salaam booy sikki sàkka farata sàngam def nga ko wala defoo ko da ngay jàpp la gën a wóor rek defuma ko daal di koy def bu julli gi agge nak nga sujjoot baxna salaam toroxale ko shaytané boo doon sikki sàkk sax say ko num tollu ndax da nga julli ben wala ñaar wala ñaar mba ñett da ngay japp lu gëna neew néew te wóor la niki ki nga nyar sikki sak ben nga julli wala ñaar nga japp ne ben nga julli jall ci ñaar boy sikki sak ñaaram ñett nga japp ne ñaar nga julli jall ci ñett nga toroxale ko seytaane laakin waaye xad ya biinu amaana bu dana bir naqsun ak wàññi bi fawti suuratin ci sababuk faatuk aw saar li an banaw ngir bañu jokkee fi fi alihim ci seen jëf wal xawli ak wax fal qabli kon nag sujoodu xawli salaam moo cay war bu ñu seetee seet gis ne julli gi ak yokk rek moo ci am kon sujjootu ba salaam rek lañ koy defal waaye nag bu fekkee ne fàtte woon na ponk te dabaatal ga wees barak boobee mu wecce ko beneen danga di àgg foo xam ne yaar dafay tase mu yokk ci wet ak wàññi ci wet ndax na rakk ya bi ko mel ne ràkk bu jëkk mu fàtte ci ab sujjóot dem ba ca ràkkam ñetteel ba door koo ca ba siggi door a fàttaliku ne ràkkaam bu jëkk kat amutoon sujjóot kon xam nga ràkkam ñaareel ba soppiku na bu jëkk ràkkam ñetteel bi mu taxawoon door koo ci ba siggi soppiku na ñaareel te moom faatixe kese la ci jàngoon ndax daa jàppoon ne ab ñetteel la te gis nga nag mu soppi ko ab ñaareel kon xam nga ab ñaareelam manqué naw saar kon gis nga ne yokk na ci wet wàññi ci wet ci kaw ne ràkka yi ko yokk gi mooy ràkk bu njëkk ba nga xam ne da caa bàyyi woon ab sujjóot te weccee na ko beneen wàññi gi nag mooy ràkkab ñaareelam amul aw saar léeg-léeg sax day manki aw saar ci rakam ñaarel ba boole walé ca manki taayu digg ndax ni rakka yi jëlal ko melne mu demone ba ci ñenté la ba ko ci ba siggi fàttaliku ne mom kat rakka bu jëk bàyyi won na ca ab sujoot kon xam nga bu ñaarel ba soppiku na bu jëk bu ñettel ba na bu ñaarel bu ñentel bi soppiku na ñetteel kon ràkkab ñaareelam amutu saar ndax ba tolloo ci taxawaayam da koo jàppe woon ñetteel te mu wëlbatiku nag soppiku ñaareel mu boole ca nag indiwut taay bi nga xam ne moo jëkk ndax ràkkab ñetteel ba moo soppiku ñaareel ba ràkk boobay jeexee fa la taay digg yelloo na nekk waaye nag da koy fàttalikuwutoon baru ko ci rakkab ñeenteel ba gi loolu moo tax taay digg raw na ko ndax fa toogoon taaya du woon bérébu taay digg saar wa itam raw na ko ci nin ko leerale yooyu yëpp moom ndegam boole na dolli ak wàññi do sujud qabla salam te baña sujud ba'da salam kon bokay tak da ngay wax ne baye farata ci rak bu jëk wala bu ñaarel te yeex ko fatliku ba rakab ñettel ba fasu manam rukko na ci ba siggi kon bo sété julem faaw dana am manki ci ak yok ci wet mu sujjóot xabla salaam su fekkee ne nag farata ba mu bàyyi bàyyiwu ko ci ràkk bu jëkk bàyyiwu ko ci bu ñaareel mbaa boog da koo bàyyee ci benn ñoom ñaar waaye da koo gaaw a fàttaliku laata ràkkab ñetteel ba di fasu maanaam laata muy rëkkoo bu sigg ci ab ñetteel su boobaa boo toppee julli ga yokkub kese moo fay nekk waaye wàññeen du fa am kon nag mu sujjóot baxda salaam kadakiril wusta niki aji fàttaliku taaye digg wa rafaxa te mbir moom yëkkati na al aydiya loxo ya waaye nag booy jàng way moom walay dii rek moo fi nekk waru ko ban akibati woom laa qabla saa waxuñu njëkk lii laakin waaye rajaxa dellu na ca jataayub taaye ja soo amee ñaar rakka dañu laa digal nga toog foofa taaya taaya bu jëkk bi soo ko fàttee nag tàmbalee jóg gën a yëkkat su fekkee ne say loxo ak say batiwoom yépp dara laalatu ci suuf kon na ngay far jàll te jàpp ne bàyyi nga taayee digg nga sujootal ko xabla salaam su fekkee nag teel nga koo fàttaliku ba nga xamee ne say loxo mbaa say bëti am na ca loo xam ne ba tey mi ngi laal suuf da ngay toogaan ndànk rek taaya jóg jàll te du aajowoo ngay sujjóot sujjóotug yokk maanaam bax de salaam waaye nag bee nga xam ne dem nga ba say loxo ak say bëti woom dara laaltu ca suuf moom dangay jàll rek te sujjóot xabla salaam loolu na mën nga koo jàng xam ko ba noppi nag boo dee jiite ña nga àndal juum loola ndax ñoom dañoo miin rek am ñaari rakka toog taaya ba nga xamee ne boo bàyyee taaya jooju rek boo demoon ba taxaw jon itam di tey ñoom ñu toog di la sàbbaal ndax bëgg nga dellu si ña ànd ak ilimaan bu ilimaan amee ñaar fàtte taaya digg bañ gis ne ay loxoom ay bëti woomam lalatul suuf duñu ko sabbal dañ koy bàyyi mu jàll bu ko defee nag mu sujjóot xamle salaam ñu ànd ak moom sujjóot xamle salaam iman ji itam bu xamee lii ba noppi na koy bàyyi xel ba sabbal gañ koy sabbal toog di ko xaar rek bu mu ko taxa dellu ci jataayub taaye ja déedéet na taxaw rek ñu fekk si ko mu wéy xam loolu la war def mu def ko na moytu ñu juumloo ko dañoo gis léeg-léeg muy faral di juumloo yenn ilimaan yi buñ ko sàbbaale rek mu daldi di dellu si te nañ ko ne ko bul dellu si jàllal rekk te su jóot xabla salaam faslun li beneen dog la xadd furidat farataaleef na salaatu jumhatin julli jumaa bi mawtinil qura ci dalub dëkk ya julli juma farata la ci kumu war waye nak bala ñu ko tabax ci béréb day fekk mbolo ma fa tassé bari ba nopi tam nak ñu nara dëkk di wéy nga xamni yalla mëna dogal ñu tax waye dëkk di wéy lañu nar waye lu melni yi nga xamne dañuy ka rek yor seenu juru fuñu fekk mu am ñax ak ndox ñu nekkandi fa bu fa loolu amatul ñu jóg jàll ñu mel noonu fu ñu mën tase luñ bari bari duñu sañ tabax jumaa ba tey nag bu fekkee ne dëkk yu réew yu ñu waaye dañu ay dëkk dëkkaan yu jege mën nañoo tànn benn dëkk def fa jumaa ñoom dëkk dëkkaan yu ndaw ya ñu fay tase jëm jumaa ji nag moom buñ koy tabax lañ ciy sart rek mooy bu mu yées seeni dëkkuwaay bu dee mag ña nga xam ne seen dëkkuwaay yooyu jamono moo doon néegi ñax seen jumaa day daal nekk rek néegum ñax buñ ko defee mu baax bu dee jamono yi seng xewee xam ne seng xëy na moo gën a foor ci yooyu jamono néegu ñax kon ba tey jumaa ji buñ ko defee seng mu baax bu dee jamono yi nga xam ne nag moom tabax moo xew faaw ba tey jumaa ji dañ koy tabax nga xam daal li ñu bañ mooy nañ def jumaa ja yées seen néegi dëkkuwaay yi ñuy dëkkee talat topp na moom julli jumaa li xutubati ñeel ba bokk na ci sart yi tax jumaa ja wér xutba ba mënu caa ñàkk bi jaamihin ci jumaa it boole ci maanaam julli jumaa dis ko defee ci ak ndànd fay fay rek wala ci jàkk joo xam ne yées na dëkkuwaayu nit ñu dëkke ni ma ko leerale woon léegi waaw ci jumaa rekk lañ koy defee xalaa muqimin war aji sax man xadara ko gàntalut julli jumaa ku fa dëkk mbaa mu ñëw fa te yéene faa sax ñeenti fan lay war waaye koo xam dëkku fa dafa tukki ci te yéenewu fa sax ñeenti fan julli jumaa ga waru ko mën na ca ànd nag mu wecci tisbaaram rek xurrin ku di gor xaribin kuy aji jege jumaa ja bi ka farsaxin ci lu toll ne ki farsax ba tey julli jumaa gor lay war waaye jamono yi gor ak jaam amee ci teqale jaam julli jumaa waru ko bala ko julli jumaa war day dëkk ca dëkk ba jumaa ji nekk boo xasee dëkk ca dëkk ba jumaa ji nekk moom lo sori sori rek wara julli si melne dakaru bo fa dekkon ben juma nek fa it rek nga wara julli si bu fekke wo ca dekk ba juma ji nek nak ta sa digeunte ak mom tollu ci ben farsax ben farsax mom lañu wax ñetti mil su fekke non la tollu rek julli juma ga war la dañu xet fa nga dekk nak ak fa juma ji nek ta baña xet fa nga dëkk ak catul dëkk ba ndax sa digënté ak catul dëkk ba man na jégé té sa digënté ak fu juma nek mom ci biir dëkk ba soré far sax ji mu tuddu modi ñetti mil mil nak mat na xam ndax yoon bu dé sét dox wañi ak yu nonu da koy ci ay mil miin nag ni ko sëriñ Mbàkke bu sa indee da caa nettali ñaari tolloole yu wuute benn bi doon 1481 maanaam benn kilomètre bu tegal ñeenti téeméeri mètre ak juróom-ñett fukk ak benn tolloole ba ca des mooy 1855 maanaam benn kilomètre bu tegal juróom-ñetti téeméeri mètre ak juróom fukk ak